AFT TV moo leen di may xikmatul yawmi xikmatul yawmi ak Serigne Saliou Sy AFT TV aada lil amaana alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisani waxlulan minhu luqad wacalhu dakiran wa shakiran abada wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyah bilmustafa xayra sham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 633 77 56 wala 77 712 44 71 ci ñi bëgg a bind seeni doom wala ñu bëggi leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul te muy ndénkaan yoo xam ne nii kat Cheikh Mouhamadul Muntaqa afisahullahu waraa nee na bu sañoon jullit yëpp dégg ko rawatina taalibe yi ba man koo jariñoo ndax njariñ la feesee dell dell dell dell te ni ko yéenee boppam la ko yéenee ñëpp moo tax nag ndigalam loole ak kàddoom goog yi ak yéenam jooj yi ñun tamit ci la ñuy sukkandiku ngir barkeelu ci jéem koo yaatal ñun tamit jéem koo leeralit sunu kemtulaay kàttan te duñ ci yokk duñ ci wàññi incha allah ndax dafa wax ne dafa am ku ñëw ci moom andi kayit woo xam ne ne ndénkaanub sëriñ tubaab moo ci nekk mu dénkoon ko taalibe yi dénk ko jullit ñëpp ci guddi gim mujjee fanaan jolof ngir war a ñëw njaareem sëriñ Tuubaa nag damay wax ne suñ borom dimbala na ko ba la ko waroon moom def na ko ci ñun muy al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dégle lu baax ak tereb safaan def na ko te wàcc na ñun kat ñoo wàccagut te ñun li ñu war na moom mooy imtisaalul awaamir wàcc di naa wàcc di naa bu nawaahi ndigal ak bàyyi tere ndax sëriñ bi kat loolee mu ñu doon digal boppam taxut ndax lam ma waxoon al cheikh Mouhamadul Muntax Moustapha ak cheikh Mouhamadul Fadal euh, ak sëriñ baarañang jaabi lam leen waxoon ne leen ah man de samay ndigal togg ku xiif la ku xiif nag boo la toggalee dangay gaaw lekk ko mbaa mu lekkaat ko lu ma leen mas a digal def naa ko ba tàyyi te bu ma leen digalee ba noppi jóg defi ko mosuma leen tere it lu ma mas a def te duma ko mas a def mukk moo tax sañ bay jaxate di wax ne sëriñ bi kan moom wàcc na sëriñ bi wax na bind na def na nu gis te digle na li moo ko warkat wàcc na mosula mooy mosula fo am na ko ñëwee jébbalu ci ne ko damaa bëgg a jébbalu ci yow mu ne ko loo ci jublu mu ne ko xanaa bëgg loo ma digal ma di ko def loo ma tere ma di ko bàyyi mu ne ko wool fere yi mu woo ña fa nekk ba ñëwee mu ne ko waxaatal la nga waxoon mu ne ko dama bëgg a jébbalu ci yow sëriñ bi ne ko ana loo ci jublu mu ne ko xanaa bëgg loo ma diggal ma di ko def loo ma tere ma di ko bàyyi mu ne ko waaw jébbalu de ay wax la rek boo ko waxee dégg nanu ko boo ko jëfee jàpp nanu ko kon buum gi ñu lëkkalee suñu déggante ak sëriñ Tuubaa kat mooy imtisaalul awaamir wajtinaabu yi mooy jëfee ndigal ak wattandiko ay tere te képp ko yaakaar ne mën ngaa jariñu ci ci Sëriñ Tuubaa te jëfoo ay ndigalam bàyyiwoo ay tereem euh, naxoo Sëriñ Tuubaa naxoo nit ñi waaye sa bopp ngay nax kon nag ndigal lii nga xam ne nii ak ndénkaan yi nga xam ne nii kat ñoroot na ko te muy ndénkaan yu wér yu leer ah nañ koy jéem a gëstu waxtu wu nekk di ci tënku te sëriñ bi fi nekk moom wàcc na ndax kat lépp loo xam ne nii kat lu ñuy jariñ la nëbbaluñu ko bëgg na ñëpp dégg ko ñëpp jot ci ba mën koo jariñoo ndax moom lim yéene eh, boppam muy dund Sëriñ Tuubaa moom lañu moom lañu yéene nun ñëpp kon nag nañ ci jéem a góorlu ndénkaane nag gudd na leetar bu gudd la waaye dees na ko def ay dog bu ñu defee tey bu ëllëgee ñu def beneen liñ ci jublu nag moom mooy mu gën a leer ñu gën koo mën a setantal gën koo mën a jafee kon ñoo ngi ñaan sunu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ku ci jot nga tasaare ko ku ko def yàlla na la suñu borom dolli ndimbal ci barkeb Cheikhul Xadim yàlla nga dajeek ngërëmul Serigne tubaa dañoo wax ne guddi gi sëriñ bi mujje fanaan jolof bi mu jullee gee ba noppi dafa woote ba ñëpp ñëw mu ne dikk leen ñu waxtaan ndax dañuy bëgg dellu ci réew ma li ma dese cib liggéey foofee laa koy liggéeyee yéen ñi ànd ak man coono yi ma fay daj ak lu mu mën di doon ñoo koy bokk daa am lu ma leen di dénk loo xam ne nangeen ko jàpp bala ñoo àgg foofa te bu ñu demee foofa itam na ngeen ko jëfee na ngeen koy jëfee ah kon nag ku bëgg a xam ndénkaan ya ak ndigal ya mooy lan nga topp ñu ci suñu xekk xikmab suba incha allah ñoo ngi soññaat mbokki jullit yi ak mbokki taaliba yëpp ci liggéeyu waa daara Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di sant itam ñi bokk ci association bi nga xam ne nii am nañu carte membre tey def seen dara weer wu ne ci daara ji fii liggéey bi toll eh, ñoo ko fi tolloo te ñi ngi ñaan mu weesu ko kon ñoo ngi ci soññ seen bopp di ci soññaat ñëpp te xam ne liggéeyub lislaam la liggéeyub Sëriñ Tuubaa la ndax lépp ci alxuraan la jëm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 in uridu illa al islaha ma stataxtama tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh